gannaaw ba nga xamante ne waa conseil constitutionnel daal dinañuy génne ab communiqué ci régier li nga xamante ne moom mooy report élection présidentielle li nga xam ne jàppoon nañ ko ñaar fukki fan nag juróom ci weeru février bi la ñu daal di nekk ñoom nag euh, bañ ko génnee woon ci article L 31 de la constitution euh, ñoom nag euh, Macky Sall daal nay génnee ab communiquer bu bàyyeekoo ca présidence gannaaw ba nga xamante ne nag daal nay wax daal ne day tontu day répondre ne rek euh, moom mooy décision boo xamante ne waa conseil constitutionnel daal dinañ koy génnee mu nekk ab constat boo xam ne l'organisation des élections ci ab date initialement euh, prévue évite les autorités compétent à tenir euh, dans les meilleurs délais mu mel ni nag moom mi la di son excellence président de la république daal dinay jël acte ak décision ngir daal di s'inscrit dans le cadre des mécanismes ci li nga xam ne mooy juridictionnel ci li nga xamante rek moom démocratie ak état de droit euh, ci li nga xamante ne rek moom mooy wàllu constitution sénégalaise ba tax nag moom njiitu réew mi ñu ngi koy xaar mu daal di exécuter décision bu conseil constitutionnel maanaam daal daal di euh, def li nga xamante ne rek moom mooy organisation des élections dans les meilleurs délais euh, mu mel ni nag communiqué bii ngeen di gis loolu lay daal di wax maanaam daal moom njiitu mi jamono ji jile ñu ngi koy xaar ci fàttali nag pouvoir exécutif moom njiitu réew moo koy daal di exercer moo nekk le gardien de la euh, constitution euh, jamono ji la nag askan wi yëpp ñu ngi koy xaar fii ak le deux avril ndax dañuy amal ay élection laataa ñuy amal weeru koor bi wala dañ koy amal euh, bu ñu koritee ba noppi ak lu ci munti xam rek danañ xaar ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy autorité yu nga xam ne dañoo compétente lu ci mel ni direction générale des élections ak waa Sénat